ngeen jël décider que ne da ngeen di suux ci biir Pastef pour ngeen def benn liste boo xam te ne da ngeen di dem ci élection présidentielle euh, d' abord lan moo waral euh, stratégie boobu. waa xam nga euh, déjà man malheureusement l'histoire m'a donné raison. mooy parce que man hmm. dama waxoon les leaders de la coalition Diomaye président ba élection bi jeexee ma leen Diomaye président dañ ko war a tas. Hmm. on m'avait traité de tous les noms d'oiseaux naan Sonko moomu yónni Jomaay moomu yónni dama ñëw pour diviser nangam ak nangam man leen vous n'avez rien compris Jomaay président c'est hmm. une coali c'était une coalition événementielle temporaire Jomaay président ça concernait l'élection présidentielle donc Jomaay président Jomaay pré la coalition Jomaay président même le nom hmm. ne peut pas aller aux législatives parce qu'on parle de Diomaye président Diomaye est déjà président donc dañoo war a ut beneen tur boo xam ne dañoo war a dem aux législatives man loolu laa leen waxoon ma ne leen président bu dissoudre assemblée il faut qu'on cherche hmm. une autre coalition mais Diomaye président moom nañ ko teg ci suuf lu nekk laa ci dégg hmm. mais bañ demee ba ci biir la réalité du pouvoir nee naa ñun ñuy ànd ak le président de la république Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko hmm. ñun ñëpp xam nañ ne parti Pastef moo ëpp doole suñuy parti ak suñuy mouvement ça il xam nga politique dafa am rationalité man man Lass Badiane non man Lass Badiane hmm. lu ma bëgg bëgg bëgg am tour lu ma bëgg bëgg am légitimité politique lu ma bëgg bëgg am popularité politique man damaa d'accord ne Ousmane Sonko ak parti Pastef ñoo ma ëpp doole ñoo ëpp doole sama mouvement saa c'est une réalité léegi nag loolu bu nekkee yow da nga nekk un homme politique hmm. te réalité boobu defoo ko sa bopp da ngay sonn maanaam iñaan dalay jàpp ñëpp xam nañ ne Pastef moo ëpp doole waxuma la ci Diomaye président mais ci Sénégal parti Pastef moo ëpp doole donc pour faire beaucoup plus simple dem ci élection législative yi man j'avais proposé ça au au au président Ousmane Sonko ma ne ko bu ñuy dem législative jarul coalition nañ jël récépissé Pastef demee ko élection législative. Hmm. mu ne ma ñeneen ñi nag ma ne ko ñeneen ñi allié bi nga xam ne bëgg na ñëw rejoindre euh, le parti Pastef ci hmm. législative yi nga ñëw. koo xam ne nag da nga bëgg natt sa doole nous some en démocratie na nga ut sa liste nga dem mais man de bu ma amoon lu ma gënal mooy élection présidentielle dëgg la ñëpp war nañu boole mais élection législative. Mhm. ku ci nekk war ngaa dem natt sa doole. mooy man suggestion bi ma joxoon mooy au sein de Diomaye président. mooy ñu am ay bloc. yoo xam ne dañuy def ay liste commune dem législative ku ci nekk boo amee député on se retrouve à l'Assemblée nationale. def même benn groupe parlementaire deux groupes parlementaires ou bien même trois groupes parlementaires trois grands groupes parlementaires yoo xam ne dañuy nekk dans la mouvance présidentielle. Hmm. parce que en face les réalités mooy nit ñi dañuy sot sotoo pour xajamal suñu liggéey maintenant man suggestion boobu laa leen joxoon mooy il n'est pas interdit au sein de Diomaye président d'avoir des listes communes. Ah. mooy ñi mën a ànd ñu ànd Pastef def listam ñeneen def listam bu demee assemblée. comme ñun ñooy ànd ñooy ay alliés lañ on se autour de la grande euh, mouvance présidentielle même bu ñu mënee am deux wala trois groupe par parlementaires ñu créer ko projet de loi bu ñëw ñu mën ko discuter pour le bonheur des Sénégalais ñu def ko. Hmm. maintenant euh, ce qui est fait est le premier ministre Ousmane Sonko a la décision comme ni mu ko suggéré woon jël passif yóbbu ko pour les législatives. Hmm. maintenant ku ci d' accord nga dem ci ku ci d' accordul donc am na ñu ci d'accord def nañ service naka ngeen ko nam élaborer c'est-à-dire ci investiture yi naka ngeen di def dangeen di jël ci waa membre Diomaye président dugal leen ci biir liste bi. wala mais liste bi day nekk une liste une liste une liste inclusive. waaw liste bi day am des militants et responsables de Pastef day am euh, toutes les instances de Pastef quoi. Hmm. que ce soit euh, mouvement des daara que ce soit les handicapés. Hmm. que ce soit les femmes que ce soit GPS que ce soit Magui Pastef. mais parallèlement aussi les alliés ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom dañu dañ leen jël parce que ñoom ñëpp joxe nañ seen dossier maintenant dañuy xool dañuy constituer une équipe parce que ñun bëgguñu def des individualités parce que individualité taxul kenn gagné. Hmm. nous nous voulons constituer un bloc une belle équipe un groupe nga xam ne liste bi bu génnee Lass Badiane mu nekk ci liste bi wala mu bañ a nekk ci liste bi Ibra Diaw wala Fatou Fall mu nekk ci liste bañ nekk ci liste bi l'essentiel c'est c'est de permettre mm-hmm. à à Pastef et au président de la République d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale mm-hmm. pour que mais gisoo fi ya quatre cinq mois le Premier ministre avait présenté en Conseil des ministres trente-cinq projets de loi yoo xam ne dañ ko war a soumettre à l'Assemblée nationale te loolu dafa bokk suñu programme Diomaye président mais loolu pour ñu mun ko yóbbu assemblée discuter ci pour mun koo amande pour mun koo voter hmm. il faut qu'on ait une majorité confortable à l'Assemblée nationale te projet de loi yooyu yëpp amul ci benn boo xam ne euh, projet de loi la boo xam ne day dem en à contre des intérêts des Sénégalais. est-ce donc, que yóbbaale na bi war a abroger amnistie bi. non bi war a. abroger non bi war a abroger amnistie. Hmm. loolu waxtaanee guñ ci. donc li ñu war a def mooy euh, balaa nga naan naam ne mooy ñun fu mu toll nii. lu ne këtti na jonn mooy on veut une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour permettre projet de loi comme li ma la ko waxee projet de loi bi nga xam ne dafay dem dans le sens pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens ñu def ko projet de loi bi nga xam ne day gën a tëggaat la République du Sénégal day gën a tëggaat les institutions du Sénégal day gën a protégé les sceaux yaa ngi dégg du Sénégal day gën a jox dayo Sénégal parce que dafa am une inéquité bi am entre la république sénégalaise et d'autres républiques parce que gis nga ci yenn nation yi nga xam ne dañuy jaay doole dañuy napp bu ñu ñëwee di signer contrat wala convention euh, bilatérale donc Sénégal dañ koy léser te mm. loolu yëpp comme c'est c'est signé dans des conventions dans des contrat il faut qu'on dépose à l'Assemblée nationale des projets de loi yi nga xam ne day créer une équité maanaam distribution des richesses de manière équitable Sénégal da ciy gis boppam beneen nation da ciy gis boppam bu nekkee des partenariats public privé ku ci nekk da ciy gis sa bopp mais am na ci benn groupe boo xam ne président da ko mettre en place hmm. ay ñoom docteur Khadim Bamba Diagne da cee bokk de grands d'autres économistes ay euh, docteur euh, professeur euh, Mounir Ndiaye muniru hmm. Ndiaye donc qui a été nommé récemment ministre conseiller à, la présidence yor fa bureau chargé des questions économiques. yooyu yëpp dañoo nekk ak suñuy avocat ay ñoom maître Bamba si et et autres dañu nakk depuis des mois di xoolaat. les contrats et les conventions que le Sénégal a signé avec ses partenaires hmm. mooy des pays wala des des des des organismes internationaux su boobaa lépp loo xam ne jaaduwul dañ koy remettre en cause mais loolu il faut une majorité à l'Assemblée nationale pour projet de loi yooyu ñu mun ko yóbbu assemblée voté ko pour le bonheur des sénégalais. Las Badiane yaa ngi campagne te campagne bi commencé gul. mais dañuy des ba léegi ci ci élection législative yi ñu dëgmal ak coalition euh, Diomaye président bi namasee ci biir liste Pastef euh, yow d'une part dégg nañ la nga ne xaaroo dara moo xam investiture ak yeneen yu ni mel euh, du risque d'abord par rapport ak mouvement jëm kanam. non non pas du tout parce que yàgg nañ leen gis ngeen engagé wu même ci côté président Macky Sall noonu ngeen defoon amoo leen dara en retour est-ce que aussi du risque politiquement. waaw non xam nga euh, man laa Lass Badiane ni may defee politique. Hmm. ak euh, ñi nekk mouvement jëm kanam ni ñuy defee politique. nous nous ne sommes pas des des politiciens de métier. waaw xam nga man sama bureau laa jógee ñëw fii. Hmm. def émission. bu ma paree damay gont damay delluwaat sama bureau damay dellu samay activité professionnelle hmm. donc man. musuma am salaire politique xaaruma ko ci donc man li ma tax a jóg man Lass Badiane mooy développement Sénégal. Hmm. fépp foo xam ne mun naa fa taxaw wala mun naa ci dugal sama loxo. ba sénégalais gis seen bopp ci euh, gouvernance su président de la république Bassirou Diomaye fay et le premier ministre Ousmane Sonko dinaa ko def man président ba ma koy seeti euh, kaso. président Diomaye. Hmm. parce que suma xarit la doon ñëw sama kër ñuy demalante. ah jotoon nga ko seeti prison. non jotoon naa ko seeti prison moo tax it ñu indiloon. ma ay période boobu duggagoo woon ci biir. no yàgg naa yàgg naa cee dugg ci lañ ma indil jafe-jafe ba ma ba ma demoon France toog fa. jafe-jafe comme. waaw parce que ba ma demee seeti euh, président Diomaye ci kaso bi. Hmm. après régime bi fa nekkoon ci lañ ma commencé woon indil di ma indil ay jafe-jafe. dañ la bëggoon jàpp. waaw bëggoon maa jàpp bëggoon indi ay yeneen affaire parce que. ñoom gisuñu woon ne man war naa seeti jomaay mi nekk ci kii bi te man. Blaise Badiane ku ko xam xam ne day assumer ay amitié man boo nekkee sama xarit sama xarit nga. ci loo nekk dama ciy lenk. Pastef ay am nañ ci ñu bari ñoo xam ne ay Amadou Ba député nangam nangam bañ leen jàppee fii gendarmerie Foire j'ai été le premier à part Ababacar Sadikh Top bu ñëw ci gendarmerie bi parce que c'est mon ami. ngi dégg donc man sama nit dama lay taxawu damay ngiroo ci yow. donc ku ma ciy mere loolu sa gata waaye man euh, noonu laa mel donc li ma ko ci wax mooy danaa la jàppale mais soxlawuma ci dara parce que man euh, du ma chasseur de prime comme certains ñi nga xam ne dañuy mer bu ñu amul nomination c'est parce que seen yitte yëpp dañ ko def ci politique hmm. man teraanga yaakaaruma ko ci politique teraanga ci sama xam-xam ak sama ñaq ak sama doole laa ko yaakaar donc te bari naa ci morom man asaka laa ci ci nga xam ne dañoo jàppale président de la république Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko te xaaruñu ci dara donc pour répondre à ta question amul risque politique li ñu tax a jóg mooy Sénégal li ñu tax a jóg mooy Sénégal jëm kanam parce que ñun suñu mouvement mouvement jëm kanam la dañoo bëgg Sénégal jëm kanam donc ku ñu mën a tabb ci liste bi man Lass Badiane dinaa la baataral campagne ba nga falu ba ñu am majorité à l'Assemblée nationale. mais Lass yow est-ce que des fois gars yi jàpp ne élément perturbateur nga ci biir coalition parce que souvent aussi. dañuy gis da ngay dal ci yenn ci membre coalition bi ci seen taxawaay ak seen i mbir est-ce que loolu du sàppe cohésion bi am ci seen biir coalition. mais euh, Lass Badiane ku ko xam. Hmm. xam ne c'est un homme objectif. man bu ma gisee nga tox nga def jéego boo xam ne wóor na ma ni bokkul ak ci lu ñu digaale Sénégalais yi. Hmm. mais dama lay critiquer man je suis un homme libre. président Diomaye sax bu ma ko war a critiquer dama koy critiquer premier ministre Ousmane bu ma ko war a critiquer dama koy critiquer parce que ce sont des êtres humains ay nit lañ dañoo jël ay engagement bu ma gisee ne dañoo def wala ñu wax loo xam ne waxewul wala defewul mais dama koy critiquer man je suis un homme responsable hmm. donc nga bokk Diomaye président nga nekk leader politique ak ko mënta doon donc tu euh, munoo munoo mucc samay critique hmm. mais man awma problème crypto personnel avec qui que ce soit man je ne que des critiques objectives allant dans le sens de mieux faire pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens mais bu ma gisee nag nga nekk di di perturber wala di di di di di di di jaay euh, arrogance wala di di yabaate wala di xeeb doomu aadama wala di xeeb waaso wala di manquer respect ay ay kilifa diine ak yooyu. damay dama lay dama lay tontu dama lay critiquer dama lay wax sama xalaat te loolu. même président de la République wala premier ministre mucc ci. Mm. le choix de maître Moussa bi nekkoon seen coalition moom itam dem berlisam c'est-à-dire que ne léegi nekkatul ci biir coalition bi wala jàppaleetul président Diomaye. non moom de ci li ma liir ci li ma liir ci page Facebook hmm. moom nee na il est toujours dans la coalition Diomaye. mu ngi ci mouvance présidentielle moom mu ngi ci mu ngi ci coalition Diomaye. Hmm. donc am na droit comme li ma la wax. dem déposer listam man ñoom bu ñu ma déggaloon. waaw ils auraient dû se préparer en conséquence. xam nga man bu ma bëggoon dem législative. Hmm. ak sama liste. damay préparer wu bu yàgg. préparer samay 15 millions defar sama liste dem mais man j'ai dit depuis le début que man je soutiens passif. Hmm. man bind naa ko wax naa leen ne bokkutuma sax Diomaye président. man fi ma bokk mooy. liste bi nga xam ne président de la république Bassirou Diomaye fay ak premier ministre hmm. Ousmane Sonko ak Pastef bi ñuy teg. Hmm. man j'ai été clair. donc depuis le début man wax naa leen sama position donc man. je suis foncièrement avec le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko est passif. donc nit am na droit nga dem déposer sa liste nga dem nga dem ut euh, député léegi bu nekkee yow tu es toujours dans la coalition tu es toujours dans la mouvance présidentielle boo amee sa député bu la neexee nga dem non inscrit bu la neexee nag nga ñëw dans le dans le groupe parlementaire euh, de de de la mouvance présidentielle. Hmm. te man option bi mu leen waxoon je pense que bu ñu ko defoon. ça aurait été mieux. am ñu tas voix mooy ñu tas voix yi ñu dem parce que euh, parfois il faut se diviser pour mieux se retrouver hmm. parce que mais Mohamed est-ce que xam nga ne dans la coalition Diomaye président les leaders politiques xam nga ñaata lañ. ñaata deux cent soixante quinze personnes. te ku nekk am nga mouvement ak parti. mouvement ak parti. nous sommes deux cent soixante quinze. te waxuma la passif de waxuma la les militants les responsables de passif c'est-à-dire les leaders. qui compose Diomaye président. Hmm. nous sommes deux cent soixante quinze. mais loolu dépassé na marge de nombre députés. députés yi cent soixante cinq ak ak diaspora y ah. léegi ñun ñi nekk Diomaye président ñun ñëpp bu ñu bëggoon nekk député. Hmm. waa Pastef ni ñuy def. Ah. mais am na ci yoo xam ne c'est c'est c'est c'est inconcevable nit da ngay nitee moo tax ma ne la sànq ma ne leen réalité politique dafa am ku lu sut dee ko wooyee njool mi. Hmm. Pastef moo sut moo ëpp doole moo mën moo dàq daw. moo gën a taxaw mooy roi des arènes nañ ko jàppale man sama mouvement jëm kanam boo amoon doolee bu passif am. Hmm. mais du leen jàppale. c'est ça la réalité politique ku bañ a jooy. Hmm. bu tooñ ku la mën passif moo mën nañ ko jàppale te yàlla tax parce que Wally Seck way na ko. Hmm. kulusut da ko wooyee njool mi. loolu la def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen. boo ko deful ni ko yàlla def mu jaaxal leen. Pastef durant son parcours ñu nangul woon moo tax mu jaaxal leen mais Lass Badiane moom nangu ne Pastef c'est le plus grand parti du Sénégal. Hmm. son leader c'est le plus grand leader politique du Sénégal.